ay ci fa la ñuy jaaree dugg ci ki nga xamante ne mooy le cas Guy Marius kooku moom nee la macha allah en ce moment sénégalais yëpp jug taxaw tepp fas yéene ko jàppale. ak tam ñëpp ko gis du ma ci ñëwaat. selon xam nga jàppale bi dama koy xam nga jàppale bi dama koy relativiser xam nga euh, Seydi Hadji Malick. Mhm. gars yi dañoo dem ne ko ñun sëñ Pape Malick si laa bëgg laa dégg mu koy nettali mu ne gaa yi dañoo dem ne ko dañoo bëgg nga jihaat mhm. jël nga yi mu ne leen. ñun dañoo lal sunu mbalaanu wasifa woo leen muy taw rek ngeen jóg bàyyi ma fa bés bu bali tàkkee fu ngeen jëm hmm? c'est-à-dire que souvent ñi nga xamante ni ñoom nga jàpp ne mën nga compter ci ñoom ci komba soo ci nekkee doo leen gis le plus souvent ñi lay gën a jàppale ci komba hmm. ba ngay combat yaakaaroo woon ne dinañ la jàppale. Mhm. te njëkkete ñoo ngi lay jàppale ci loo yëgut. donc loolu aussi ñi nekk ci combat yëpp nañ ko bàyyi xel ñi naan la maa ci sa ginnaaw damay wax gaa yi may leen ku leen maa ngi sa ginnaaw rek defal attention <laughs> ku la bëgg ku la bëgg a dimbali sax du nekk sa ginnaaw sa kanam lay nekk bu dara di ñëw mu dékk ko waaye sa ginnaaw nga <laughs> yaakaar ki nga hmm. li ñuy ah, ñaan mooy li ñuy ñaan li ñuy ñaan mooy mu génn ci kaso bi mhm. Guy Marius n'est pas un homme dangereux en tout cas dangereux wul ci askanam la dangerosité de cet homme là lan mooy critères qui ñuy indi ba dangereux pour man euh, dafa am benn lekk bu muy préserver am héritage bu muy moy gi Marius Sagna ben jour man ak mom dañu am ben waxtan bu sori ñu waxtan ci sëñ Touba lañ doon waxtan mané ko de seigne Touba dafa wax né mhm. bi ñu procès bi ba pare dafa wax ne dinañ ma génne mhm. sama réew mhm. parce que je suis un éveilleur de conscience ah mané ko nak jaan ji doon maté mo fi nek da fay changer kanam rek di changer forme waye amna taxaway yo xamanteni kuko ni ku ko am mom xamal ne na nga préparer sa bop ci yu bari na nga préparer sa bop ci takaliko ak sa njabot na nga préparer sa bop ci baña am quiétude na nga préparer sa bop ci baña am privilège na nga am na nga préparer sa bop ci yu bari bari bari ndax lolou la combat bobu andal te combat bobu moy bëgg sa askan féex bëgg sa parce que waaw c'est-à-dire que soo bëggee sa askan feex pour nga feex day jafe soo bëggee sa askan am indépendance soo moytul dinañ la priver sa liberté soo bëggee sa askan suur soo moytul di nga xiif soo bëggee sa askan mandi soo moytul di nga mar donc loolu mooy euh, li nga xamante dafa inhérent te encore une fois l'ennemi change de visage mm-hmm. mais il est encore là sous d'autres formes mm-hmm. Aïcha kaddu yu am na solo lool muy jëm mu dafa euh, message bu ama am solo ci ki nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna ñu koy ñaanal muy dellu si waat ni mu gën a gaawee waaye noonu la ñuy jaayee donc fële nga xam ne mooy Gambie temps yi yëngu na de ci jot na. waaw euh, xam naa ne dina am ñoo xam dina leen bett mais dina am ñoo xam du leen bett man ci ñum dul bett laa bokk coow li nii. Mhm. bi muy ñëw ne ñetti ñetti at lay def dama xam ne rek xamul réew moo tax. Mhm. xam nga la réalité du banc de touche. Mhm. c'est la réalité du terrain. waaw ni ngay tëggee mbir yi ci sa bopp. Mhm. ak boo duggee ci terrain bi. la waaw la nga fay fekk wuute na. Mhm. waaw du ku ñu waajaloon ngir mu nekk président de la république. ay concours de circonstances rek moo ko indi. au pouvoir. Mhm. loolu moo tax euh, problème yi mu am. bettul kenn xam nga dangay bëgg sax jooy yenn saa deux millions de personnes Gambie. mënoo ko développer. deux millions de personnes. le taux de chômage bi de 40 pour bateau bi mujjé dem kérok té échoué sur les côtes mauritaniennes mais Gambie la jogué. Xalé yaa ngi dem hmm? la santé l'éducation sont relégués au dernier plan Et pourtant l'insécurité aussi nañ budget ci ci qui lañ ko def armement ci lañ ko def comprendre nga mhm donc euh, aujourd'hui c'est une recette de non, il y a un problème de gouvernance il y a un problème de gestion des ressources il y a un problème de répartition des ressources réew du Tchahan, réew du Tchahan de lu compliqué la du lu yomb réew bu nit ñi di nelaw C'est ngi xool sacerdoce la responsabilité la du lu yomb dal motax tax ko yor war nga ko fonk bu baax a baax xam ne defal na la charge bu mag yenn na la yéen bu 10 mm-hmm. waaw donc du privilège responsabilité la mm-hmm. waaw responsabilité la bu maga maga mak motax mag euh, dañuy ñaan yalla ñi ñu ko dénk daal mm-hmm. yàlla na leen yalla defal toute l'intelligence nécessaire waaw ba ñu mën doxal parce que li tax ñu wara ñaan suñu président yi réussir moy réew yu fragile la ñu am démocratie yu fragile la ñu am donc dañuy ñaan yàlla ñu réussir parce que bu ñu réussiree euh, ñun la ñuy dimbali en réalité xam nga mooy li maam Abdou doon wax ne boo amee sa ëmb ci gal gi bul ñaan sa ëmb mucc ñaanal gal gi mucc su gal gi muccee sa ëmb mucc waaye boo naan yàlla na sama ëmb mucc mhm. su gal gi suuxee nga suux de donc ñun tey kenn amul intérêt mhm. à ce que nos pays ne réussissent pas au contraire mhm. ñun dañuy militer pour que nous réussir dañuy militer pour que jamono bu nekk muy Macky Sall muy Adama Barrow muy Alpha Condé nous borom jox le maximum d'intelligence sociale ba nga mëna def donc on a d'autres combats Macky Sall aujourd'hui son seul adversaire c'est le chômage des jeunes c'est le c'est la charte de la vie c'est l'insalubrité c'est l'éducation c'est euh, la santé loolu mooy ay adversaire am képp ku ko gëmloo ne ko am nga beneen adversaire bu dul ñii dañ koy ñooñoo koy rey nag ñooñu nga xamante ne dañ koy wutal ay ay ennemis ay bi gën a mag mooy yi ma la wax noonu loolu mooy ay adversaire am mais na attaqué adversaire yooyu rek na jàpp ne saa bu xëyee ñooñ ñooy adversaire am loolu su ko defee rek te bañ a déglu gars yi koy wax naan kan diw daf la bañ diw bëgg la diw a ngi complot contre diw a ngi complot yow diw a ngi def nangam diw a ngi def nangam non non waaw bu dee da nga bëgg a dugg ci histoire daal mhm. da ngay jàpp ne sa adversaire parce que parce que yàlla pare na mhm. yàlla pare na mhm. xam nga sëñ Tuubaa dafay wax ne euh, njëriñ ak lor mu ne du bàyyi ko ku dul ci sunu borom mën da bàyyi ko ci ku ñuul mën da bàyyi ko ci ku weex waaye mu ne mu wax ci benn téere bu tudd ilhamu salaam te daf ñuy ramani ci débat bi ñuy def ni mu wax ne am na ñoo xamante ni dañu jàppe tubaab bi malaayka rahmaan malaayka yërmande lañ jàppe tubaab bi waaw jàpp nañ ne tubaab bi moom daal njëriñ njëriñ la lu àndul ak lor loolu musiba la waaw donc euh, il faut que ñu changer rapport yi. Mhm. changer système bi aussi. waaw il faut que ñu changer façon de faire bi il faut que ñu am posture bi attitude bi mhm. te loolu dafa am solo waa ji dafay wax ne attitude ak aptitude moo lay jox altitude bu am solo. Mhm. attitude ak aptitude moo lay jox altitude waaw donc bu fekkee ne dañoo bëgg a yëkkati ko bu fekkee ne dañu bëgg a mag. bu fekkee ne dañu bëgg a ñor. bu fekkee ne dañu bëgg am taxawaay il faut ñu boole ay aptitudes yu waaye xam-xam bi du doy. foog nga am attitude bu am solo. ay base yu solide. waaw ah, ngir nga mën a am benn. egg fi nga bëgg a egg Aïcha fa leen ñuy jaar nga daal di résumé li nga xamante lu jëm ci drame wàllum viol ci Sénégal parce que gis jamono yi jamono gi ah, dafa bari lool ci mbir xam nga tout se tient en réalité. Mm-hmm. wax naa léegi am na ci wàllu viol. Mm-hmm. ak violence. Mm-hmm. yoo xamante violence dafa bari forme. amna ci bo xamanteni dafa verbal mhm. amna ci bo xam dafa physique amna ci bo xam dafa symbolique mais d'abord pour ñu mën ko régler il faut que ñu def typologie mhm. des violences d'abord abord yan xeetu violence la ñu am mhm. ñu def ensuite cartographie des violences fan la gëna wulé wulee ñaay suñu defee typologie bi def cartographie bi après dinañ mën a xam yan solution la ñu mën a indi ay violence nak dafa bari forme amna ci violence boo xamante ni ci sun kër yi la waaye boo gisee ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo war a régler say problème nga jox leen lépp mettre leen à l'abri du besoin ñoom ñu continuer nekk à l'abri du besoin yow nga continuer nekk ci ñàkk gu metti mais loolu tam c'est une forme de violence détournement violence la mhm. corruption violence la mhm, li ñëpp bokk kenn jël ko lekk ko violence la mhm. hmm? nga jël war a war a ministre wala ñëw fenn wala président war jël fenn nga jël yaayu jàmbur yi teg leen ci naaj wi yu téyeloo leen ay pancarte violence la loolu du violence. jox leen passe. jox leen passe loolu violence la loolu tamit violence la loolu tam foog ñu wax ci. donc il faut qu'on corrige tout ça. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah mu nekkoon suñu gan ci li nga xamante ne mooy entretien dañ koy jox mu dañ koy bàyyi mu def mot de la fin Pape Djibi. mot de la fin bi di leen sant d'abord. di leen gërëm ci. Euh, boole bi ngeen ñu boole ci ñi ngeen jàpp ne war nañoo wax lu amal solo nit ñi ñuy ñaan yàlla mu nekk lu am solo donc euh, di ñaan yàlla suñ borom mu def ci Sénégal jàmm di ñaan aussi euh, mu dimbale ñu ba kenn ku ci nekk rek liñ la yaakaare ak fa nga nekk jamono bu nekk nga ci am tawféex boo xamante dina la permettre nga répondre aux attentes